asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di yëkkati ay kàddu bala ñuy wax ci itte bi tax ñu ñëw fii tey mu bëgg a tontu suma waaju baax ji parce que moom moo woote waxtaan ba noppi. génn reer joxe mu mel ni dafa bañ ngeen déglu parce que xam na ni xel bu jàpp ñaar donc bëgg maa wax loo ci bi ngeen di lekk mooy bu leen déglu mais xam naa ni du ngeen nangu li mu bëgg. c'est un piège qui m'a tendu mais on va échapper piège beneen bi mooy bu ñu sant yàlla ba noppi nañ wax ni lii lépp ci barke Ousmane Sonko. ku ñu fi tàccu bul jàpp ni yow yaa tax ku ñu fi wax merci bul jàpp ni yow yaa tax yàlla moo maye moo may Ousmane Sonko ma wax leen benn affaire Ousmane Tounkara mi ngi def mu ngi def liggéey bu am solo. ah oui tàcc leen ko. mais Ousmane Sonko Ousmane Tounkara su bàyyi woon li muy def ci Ousmane Sonko dem di ko defal Ousmane Sall mi ci pale bi du soxati dara. li ma bëgg a mooy ci barke Ousmane Sonko nañ ko sant yàlla li ñu boole fii nag bokk pas-pas la bokk yéene bokk gëm-gëm ba noppi ba noppi nangu ni amul kenn ko ëpp daraja ci li ñuy def nous avons l'habitude de dire le grade le plus élevé dans Pastef c'est simplement le grade du militant et kan mooy militant mooy ki nangoo def li ñuy wax the gift of oneself for the homeland ñun ñëpp loolu moo ñu boole nangoo ñàkk dara ngir senegal yi jariñoo Ousmane Sonko waxoon na ni bokk ci projet bii dafa diis dafa metti dafa tàng ku bëgg koom ku yàkkamti palaas ku yàkkamti paltu ak ku bëgg sa kalpe doo ci bokk mu wax ni ku ci bëgg a bokk il faut nga xam li ci mën a fekk ñu natt ko peese ko su mooy sa reer bi mu ngi yàqu suñu waxtaan bi de waxal sàlleen yi siyeen yi ak njaayeen yi nañu déglu wala may gedd man damay bàyyi de alors bi ñu nattee mbir mi ñu gis ni ñett ñi mooy natt yi mën a dal le vrai patriote ñàkk sa liggéey nekk ci kaso bi wala génn sa réew daw laa ko yaa ngi ñuy toog wala ñàkk sa bakkan te loolu lépp Pastef dajale na ko alors loolu mooy gëm-gëm bi tax ñu bokk ci lii dara tax ñu soppi ko fii nag ñi fi téye liggéey bi dañ leen di sant di leen gërëm ndax seen pas-pas yokk na pas-pas ca réew ma te niñ koy waxee fii ci New York noonu lañ koy waxee ci Suisse noonu lañ koy waxee ci Canada noonu lañ koy waxee en France en Belgique noonu lañ koy waxee partout où la diaspora sénégalaise am na ku wax ni vous n'êtes que 4 pour cent billaay xamul lan mooy diaspora ndax diaspora mooy réew te dañoo wax ni doxandéem lu tabax réew doomu réew mooy tabax réew ak fu mu mënti nekk doomu réew mooy tabax réew man day sañuma xeeb kenn ko bokk diaspora bi ndax da ngeen def ñett yoo xam ñun ñu nekk fële mënuñu koo def da ngeen di voté da ngeen di votaloo ba noppi di joxe. te joxe bi alors nous on espère que joxe bi tey lañuy def ko fii mais tey mooy nekk de climax kenn da ko rombati donc 300 millions Chérif gëmul ni taw 300 millions dina am man gëm naa ko on va voir à la fin du décompte ndax 300 millions dina am mën na nekk dina am mais li ñu bëgg jox wax rek mooy yéen a ngi voté kenn xeebu ko yéen a ngi mbokk yi ngir ñu voté. ne ngeen ñu dimbali parce que dans la région nord ak dans la région est amaguñu suffisamment de personnel politique pour surveiller la vote parce que élection bi leer na ba nopp bu ñu doon xool ndax sénégalais wane nañ seen bëgg-bëgg mais nit koo xam ne kii dafa am état am pouvoir am sénat am daaf am police am autorité euh, autorité décentralisée mën na sàcc élection parce que mës na am. buñ ñu gëm la ni sàcc mënut am ndax ñi am ñi ñu jox carte ñuy voté deux fois trois fois quatre fois am na kenn mënu ko weddi mais bu ñu amee bu toog di xool ku kenn dul napp ku kenn dul xuuxal muy ragal kenn du sàcc ci noor bi kenn du sàcc est bi Dakar dina ko res Thiès dina ko res Touba dina ko res Mbacké dina ko res Louga dina ko res Kaolack dina ko res saint dina ko res Ziguinchor dina ko res mu des mu des fi nga xam ne bii. amuñu fa ay bët fi ñu amul ay bët dimbali leen ñu fa ay bët la région nord ak dans la région est ñu mën a surveiller la vote dóor gaa yi mu jeex leneen li ma bëgg wax mooy di ko jeexale Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ci kaso bi borom fiche de parrainage 111 dafa am liggéey bu am solo bu def ba Pastef diaspora taxaw na ngeen seede par la voix du président Ousmane Sonko ñu ngi koy remercier pour toute la qualité du travail qu'il a fait et qu'il continue de faire en prison et li nekk ci moom moo nekk sur nos 1500 détenus déterminé mais Macky Sall jàppul détenu kese jàpp na famille yëpp ndax kuñ jàpp sa doom jàpp la kuñ jàpp sa jëkkër jàpp la kuñ jàpp sa jabar jàpp la kuñ jàpp sa jàpp la kuñ jàpp sa nijaay jàpp la donc jàpp na plus de 1800 familles tëj ci kaso bi mais du doon jàmm ci moom la victoire est proche 75 jours moo des mais 75 jours 75 jours on a subi 12 ans de primates d'assassinat d'emprisonnement dàq ci liggéeyam 10 ans il reste 75 jours mais 75 jours bu ñu naagoo yàqu ko. xeexee yàqu ko bu ñu xuloo yàqu ko bu ñu deeyul yàqu ko soixante de la victoire soixante-quinze jours pour que Ousmane Sonko dox ak ay tànkam dem fóon drapeau Sénégal ne moom mooy président de la République 75 jours donc moo ñu séparé de la victoire incha allah mais suma gars yi yéen jigéen ñu baax ñi yéen góor yu takku yi bu ñu naagu nañ ko defar ba mu nekk victoire bu kenn dul werante nañ ko defar ba mu jekk bu ñu naagu bu ñu naagu nañu programme ñi ngi ci. nañu campagne ñi ngi ci nañu génne xaalis et ci bii nag moo tax ma bëggoon déclarer ouvert la campagne de levée de fonds ce soir ici à New York en merci président euh,